xam ne sëriñ bi wax na leen ko sànq ñu gisee ak yéen muy cantam ak moom ak xelam mu dal ci màggal gi nga xam ne dañ ko dëgmal incha allah te di ko màggalal sunu waajur yaakaar ci Ahmadu Bamba muy maam Jaara Buso màggal gi nag ngeen ko xamee euh, bis bu nekk rek fàttaliku la fàttaliku day ñaaw walla mu rafet moom nag yàlla daa def dundam guddul waaye léppam da koo jeexal ci yàlla da ko ko yàlla dëggale diggale ci anam yi yëpp ak wàll yëpp da koo matale eh, loolu yàlla ko fay yàlla faye ko li nga xam ne eh, du moo mbedd moo dem fekk fa du dëkk boo dem fekk fa muy doon waajuru Sëriñ Tuubaa ñaareel ba muy jigéen am bis boo xam ne yaakaar naa góor ñi ko am sax bariwul kon liggéeyal yàlla rek am solo liggéeyal yàlla rek ci la lépp nekk ci la kon màggalam ñëwee ñuy màggal bisam yaakaar naa ne képp koo xam ne bëgg nga réew mi bokk nga ci réew mi wala bëgg nga lu baax ak foo mën di bokk danga war a ànd ci màggal googee da nga war a ànd ci ànd ci ñaan googee ndax lépp ci yàlla la jóge te lépp ci yàlla lay dellu nun yàllaa nu bind moom nu fi indi waaye dañuy dellu bis ci moom mu àttan kon nag lépp lu soxal yàlla rek ci leen war a nekk guddi ci leen war a nekk bëccëg ni ko sëñ bii digle ni ko borom bis bi nekkee woon ba yàlla jële ko fi kon bu bisam ñëwee eh, ngeen taxaw ci taxawaay bi ngeen fi fi taxaw muy tàmbalee ko ca daje yu njëkk ya CLD ba ak CDD ba ak CRD bi nga defoon Kaolack ak bii nga xam ne ni nga ko waxee dañ koo def ngir xayma Euh, liggéey bi nga xam ne defagun nañ ko ak bi nga xam ne defaguñ ko ngir lépp bu dajee dëppoog li nga xam ni moonu tax di sonn muy bis bi aw yoon bis bii doon noflaay ci ñëpp ñi nga xam ni teew nañ fi ak waa réew mi euh, sëñ bi nag mi ngi rafetlu bu baax seen euh, taxawaay ak seen yitte te loolu man mat naa ji seere ndax noo ko fi teewal noo ko fi nekkal te tey ji defe naa mooy daje bi nga xam ne moo mujj ci daje yi li ci des lépp jëf la ak seetlu ak liggéey ak taxaw ak ak jubbanti waaye li ci amoon solo nag lépp nun moo di liñ seere daal moo di li nga xam ne jàll na te waroon koo def service yi war koo def ci seen njiit lenn lu ci ne bañ ci àggee nanu ko bëggee nun defe nañ ko noona buñ bu fi bu fi bu fi yokkuwut itam yi nga xam ne defaguñ ko yi te am nañ ci yaakaar ndax xam nañ ni ñi leen fi jiitu li ñu def ñoom ñu def lu ko yées ndax kenn ku ne war ngaa am jom kenn ku ne war ngaa am ngor ba sab nawle la ëpp yow ëpp lu baax du mën ci dara ba tax wàll yëpp ni nga ko waxee daanaka du ma ci dellu si ci wàll euh, am na yoo xam seetlu naa ko rek faaw ma wax ko ndax jotuñ ko woon a wax ci daje bi mooy wàll sécurité bi nuy sant bu baax di gërëm ci xalaat bu bees bi nga xam ne am nañ ko ren te commandant gendarmerie bi am ko moo di sëriñ xam ngeen ne yilifut poroxaan rek eh, dafa yilif poroxaan yilif Touba mooy sëñ fu muy dem fu gis ngeen fu mbooloo mi daje tey ji mën naa wax ne bisi yi mu fi nekk yëpp tey ji la mbooloo mi gën a néew te àdduna fu ñuy daje fu ne rek dañoo aaje taxawu leen nos leen ba nga xam ne loraange du fa am leen fa dajale rek moom moom ñu am ko bi sëñ bi ñëwee ba léegi commandant gendarmerie ren am na xalaatu wul fukki fukki gendarme ak ñeent ñoo xam ni bu ñuy yendoo ci sëriñ ba ñi fanaan fa keroog sax maa ngi koy tooñ ne ko man de sama mag dama gën a wér ëpp ma sañ-sañ ëpp ma doole comme nag man awma ci yooyu dara te moom am na ko moo tax ma ñaani gendarmerie ñu yebal fi ñoo xam ne dañuy wattu dañuy wattu kër gi di la wattu mu sant ji bu baax ne ma daal wax dëgg yàlla loolu moom xalaat bu rafet la waxuma la sa wattu ma man waaye njaboot gi ay gone da cee bari te gone fu ñu dajee rek njuumte dafay am te taxaw nañ ci taxawaay bu rafet boo xam ne boobu bisub tey bii benn taxawaay gënu koo rafet kon nag lool noo ngi ciy sant bu baax gendarmerie GMI nag moom fekkoon na moom lu ko jiitu fu sëñ bi nekk ñu ànd ak moom waaye lii nag man màggal Porokhane laa sañee wax moom lañ ma waxloo moom laa yor moom laa si mën a seede itam xalaat bu rafet la boo xam ni gendarmerie am na ko noo ngi koy rafetlu bu baax di la ko seedeel yow itam yeneen liggéey yi ci des itam nag noo ngi koy nekk bu accès allah yaakaar nañ ni noonu gendarmerie def rek la def eh, doyen yi danaa ci yokkutu daanaka waxaloon nga ma ko jarul ma di ci ñëwati mooy nun dafa am nu nu yàlla bindee nu yàlla bindee moo di eh, Sénégal dañoo jàpp ne nun noo ko moom bu yàqoo noo koy njëkk a yëg bu defaroon noo koy njëkk yëg kon lépp loo xam ne da koy defar noo ngi ca guddi noo ngi ca bëccëg boo demee ci mbay mi nga xam ne mooy sunu wàll kenn mënu mënuñu ca lu ko yokk rek lañuy def def guddeeg bëccëg te lu nu ca wax ñu def leneen noon leneen noon moo tax ba ba ni ko gouverneur waxee dama doon keroog doañ sa nee noonu buñ mënoon am bu ngeen néewoon doole sax nu wut ay Baay Faal boole leen ak ñoom ñu taxaw leen ci liggéey bi ba économie réew mi bañ a yàqu duñ duñ duñ duñ duñ forot duñ forotlu te àndunoo koy forot marchandise mel nii it mu lu moom Sénégal soxla wuñ ko tolloo nag nag sëñ Tuubaa moo yaatu ba fu ne ma nga fa fu ne fu ne taalibee nga ma fa fu ne ay nit a ma nga fa boo demee Gàmbi am nañ fa lu ci daayira yoo xam ne kenn xamul nuñ toll jamono yi nga xam ne seen xaalis dafa baaxatoon dañ daal di ñëw di wax ni dañoo bëggoon ginaaw xaalis bu baaxut ñu di ko wecc ku ceeb wala suukar wala leneen booba daanan ñaan waaye bu ñu mësaan ñaan lu jaadu rek la ñu ñaan dañ leen di wax ne leen yéen nu gën a xam fraude yéen gën a xam lu nit di jariñoo kon lu ci ñëw rek bu ngeen yaakaar ne dañ koy jariñoo bu ngeen ko mënee ngeen dimbali nu bàyyi ko waaye bu dee marchandise nag moom suñu yoon nekku ci binduñ ñaanuñ waxuñ fenn kon loolu rek laay yeesalaat xam ne foofu rek la nekk leneen lu ci amit nag ndax àdduna moom dafay dox te léeg-léeg dara bett la waaye lu ci amit ni ngeen ko ni ngeen nu ko wax noonu rek lañ koy defee danañ ñëw ba ci seen i kilifa ñu wax leen ko bu ngeen defee xayru mu ngeen defut xayru moom lépp lañ yemale lépp luy defar daal nu nongi ci guddi nongi ci bëccëg kon loolu rek laa amoon li mooy dolli ci doan service yi ci des mu awma lu ma ci wax ndax seen seen seen yéene rafet na seen taxawaay rafet na am na ci ñoo xam ne àggaguñ ci seen liggéey waaye ragal nañ ni niñ ko waxee noonu rek lañ koy defee wàllu santé itam niñ fi wax euh, moom it noo ngi koy rafetlu xëy na li ñu laajoon lépp ci ay garab amuñ ko waaye li ñu wolof di wax waññ ci benn lay tàmbale bis bis dana ñëw mu àgg fan ko bëggi waaye xeebuñ nag li ñu jox wax dëgg yàlla xeeb xeebuñ ko naaw nañ ko noo ngi sant di leen ci gërëm te ni nga ko waxee rek ni ko médecin chef bi waxee góor góorgóorlu ba saytu ko ba ñett yi tax ñu laaj ko ñu def ko ci loolu moo li ci njëkk mooy faj ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi bu desee ñu jox ci daara maam jaara ji nga xam ne juróom fukki gone yi jigéen ña nga fa di internet ba ca des ñu jox ko dispensaire dëkk bi ñu di ci faj loolu bu ñu ko saytoo fukki mil ak ñaar ñaar yi ñu wax bu ñu ko defee nañ ko war a defee jaar ko fa ñu ko war a jaar te moom lañu wax léegi yaakaar naa boobaa liñ ci bëgg lépp incha allah danañ ko danañ ci danañ ko am di rafetlu it personnel bi ñëw euh, ambulance yi ñu wax lépp noo ngi koy noo ngi assainissement yi noonu noo ngi noo ngi rafet lu ñu ci def boo demee kër sëñ bu la ko wër lépp def nañ ko ay def nañ def nañ def nañ ko ña ngi koy defar ak defar ba sa àggagul xam nañ ni lañ mënoon mënatuñ ko de mu njëkk daa dañ fi indi lu ëpp lool ci ci ci ci cabine mobile yi daa nañ fi ëpp lool ci ci oto yi waaye ni ko gouverneur waxee rek loo gis lu ne dañ koy organiser loo organiser rek ñaare loo ca néew néew doole rek la nga bëgg da ko am kon bu oto yi tey lay ñëw ñu yokk bis yi liggéey bi ñu yokk rotation yaakaar naa ni boobaa lu ca manqué danañ ko mën a motti hydraulique ci lay ñu moom noonu ñoom suñ njàqare yëpp ci hydraulique la nekk kon bañ jàppee màggal gi boobu fekk na dëkk bi daanaka ndox amu fi keroog maa la koy wax ci CRD bi ne la Porokhane moom ak caare ne la ndox amu fa ndax booba ñetti forage yi fi am benn bi amul château d'eau benn bi li muy génn ci ndox doyut benn ba château d'eau dafa dafa dafa dafa day senn nga xam ne benn bu ci jag rek amul loolu nag bu amee ci dëkk ña fa nekk danañ jaaxle buñ nee nag àdduna jëpp danañ fa daje nag xamu ni ñuy def waaye nag ndimbalul yàlla moom bu agsee rek jaam xam ne yàlla rek mu am solo yàlla rek a mën a dimbale yàlla rek a mat a àndal moom rek a mat a liggéeyal waaye ni mu ko waxee ak seen taxawaay seen pas-pas seen yéene seen xalaat yu rafet yéen ñëpp ngeen ànd ci ba alhamdulilah tey ji yaakaar naa wàll yëpp suñ xel dal na ci waaye ndox mooy ci raw sëriñ bi wax na ko léegi kon nag noo ngi rafet njot ci ne forage bi nga xam ne PDC def na ko fi muy ñaareelu forage am maa ngi koy fàttali ñaareelu forage am ak pompe yi nga xam ne wax nga ne léegi ñaar bees la yoo xam ne eh, danañ nu ko yónnee ak li nga xam ne seen oo def na ko fi ak ak kofoor yëpp bu dajee yaakaar naa ne daaw eh, ndox kenn jàmbatu ko woon te pexe yi ñu am ren ji amun ko woon daaw kon nag eh, rafet nañ ci njort bu baax yaakaar ne rek defe naa incha allah bu ko yàlla àggalee ci ni ñu ko tëralee yàlla mën noo dimbali te ndox mooy lépp waxtu bu ne dama koy wax courant bi bu ko pewoo nit ngelaw laa ngi fi. kër gaa ngi fi waaye ndox nag bu ñu ko amul fu ñu jëm waxuma la sa jullit waaye doomu aadama doomu aadama bu amul ndox. booy juddoo ndox ngay soxla boo dee ndox ngay soxla booy dund ndox ngay soxla boo ko amul nooy def kon ndox mooy lépp kon ku yàlla dimbali ba amatoo jaaxle ci ndox war ngaa sant yàlla bu baax sant itam ña nga xam ne ñooy sabab ba ñoom la ko yàlla jaaxle kon wàll googu nu koy rafetlu bu baax genn wàll ci des itam mooy eh, Ageroute moom bari woon nañ ci ay jaaxle lool damay tooñ sama mbokkum séréer mi naan ko yow toujours sa wax day njëkk a naqare waaye day mujj neex <laughs> eh, jaaxle woon nañ ci lool ci bare bare jaaxle woon nañ ci yoon wi ak tolluwaay yi nga xam ne fi la fi la réew mi toll surtout nag ñetti kilomètres yi nga xam ne dañ koo def rang-rang te muy romb bare bi yoo xam ni bi màggal ga ay kilifa dañu fay ne eh, ni ni ko gouverneur waxee léegi bi ñu koy visité gis nga ko benn benn yoon mi ngi jaar ci résidence des hôtes jaar fii ñu defee cérémonie officielle benn bi mu ngi jaar ci kanam kër sëñ bi ak ay rakkam yooyu tey bu ko ñu ci defatoon pexe ñu ci def directeur général bi ñëw fi ànd ak Diouf ñu xalaat ci xalaat bu rafet biñ ci am ba léegi suñu di ko ñuural kon jaaxle gu rëy ci lañ ne keroog sax bi directeur général bi daal ni ñuy def mooy fekkee ni daal amoo ci menn pexe muñ ko ñuulal li damay wax sëñ bi ñu fomm mag <laughs> kon nag wax dëgg yàlla nag <laughs> <laughs> kon nag alhamdulilah wet googu itam noo ngi ci la li ci des itam nag ak guñ ci ay communication noo ngi ñaan rek Sonatel mu góor góorgóorlu xam naa jamono yi moom ay jafe-jafe bari na waaye xëy na eh, kii kii bi la xay xëy na rek eh, liggéeyu jaxasoo yi la te ñoom rek nekkuñ fi waaye nag ñoo ngi ñoo ngi sàkku daal ñu gën a góor góorgóorlu surtout ba li ñu leen ñaanoon ñu def ko mooy ADSL bi dem ca lycée ba àgg ci dëkk bépp ndax li dëkk boo xam ne ñi dañoo am ADSL yi ñu amuñ dëgg yàlla kenn xamul lu mu doon te at yëpp ñoo ngi leen ko topp waaye lu noon noonu nag wax dëgg yàlla ñoo ngi rafetlu seen seen taxawaay ak seen yéene ju rafet yaakaar nañ rek nañ daan liggéey ak ñu liggéey danañ ko defee noonu wàllu transport bi it am solo la dëgg yàlla kiiraange nit ñi moom mooy lépp waaw màggal goo xam ne màggal lu mu neex neex neex neex bu amee benn accident ñu ñàkk ci benn bakkan rek musiba mu rëy la te gis ngeen at yi fi am yi fi yi fi jàll accident yu garaaw am na yoo xam ne yi euh, mën nañ cee taxaw mën naa taxaw bu baax kon nag noo ngi rafetlu transporteurs yi ak ñi nga xam ne ñoo yor prévention bi euh, seen taxawaay yéene ànd ak ñoom nag taxaw tem ba niñ ko bëggee rek ñu amee ko ni dogalu bu yàlla moom jàmm mënu ci dara waaye jàmm mën naa sabab lu yàlla fekk ko ci kon buñ sababloo rek lu yàlla mën nu jàpp rek li ci des nag xëy na mooy euh, courant bi Euh, courant bi moom am naa ci xëy na dama ci xamul dara nag nit moom lu mu xamul dara euh, mën na caa tiit mën na caa jàq mën na caa jaaxal ndax li euh, chef d'agence bi wax léegi wax ne day mel ne oto boo xam ne amul pënu secours moom moo ci am oto bu amul pënu secours nag ma lu ci gendarmerie xam waaye man xaw xaw ma xaw ma xaw ma déli la xaw ma du déli waaye moom ki ki dugg ci oto bi moom bu ko wóoree ni oto bi mu dugg amul ko dana jaale kon nag euh, coupure yi gis ngeen ko booba tey mi ngi am leeral na léegi li tax waaye taxul man sama sama xel daal dal ci ndax nim nim leeral leen ni jafe-jafe yi ñu ci am waaye nag xëy na moom biñ moom ak bu ànd ak ndimbalul yàlla ak seen yéene ak pas-pas yàlla mën naa def ñu màggal ci jàmm ci ak ak ñoom wax dëgg yàlla at yi weesu moom amuñ leen lu ñu leen di jàmbatal daaw sax defe naa dimbali nañ ci leneen loo xam ne du courant waaye nag lu ñu mën a defal rek courant bi moo nu yitteel moom lañ seq ak ñoom moom lañ séntu ci ñoom kon nag lu ñu mën a def rek na jëm koo te lu ñu a dimbalee rek ba gouverneur wax na ko délestage waaye boo boo hors délestage bu amee te amoo courant it du am benn njëriñ kon nit ñi góor nañu dimbali daal ba lu ñu gën a mën ci courant bi bañ di couper daal ñu ñu dimbali tey courant bi moo yor ndox mi loolu ñu ma doon wax léegi gis ngeen forage yi ñu dem am nay groupe waaye groupe yi màggat lay am yi am am na joo xam ne sa amu amu xalaat leen nag nii nii mel mu continuer bañ àgg ci màggal gi waxuma la sa tàngaay waaye ndox mi rek day daal di jafe kon nag ñoom yërëm naa suñ bopp waaye yërëm naa leen faaw ñu sonn faaw ñu gën a góor góorgóorlu faaw ñu gën a takk xam ne kat at mu nekk nattu danaa daal kenn ci ci service yi waaye ñoom ren ji wutul na seen seen nattu lay doon ndax mbir moom boo rek am nañ ci jafe-jafe te te waxoo waxoo xalaat boo xam ne ki ki ngay waxal xam na ci dara day daal di jaaxle kon nag noonu ñaan dañu gën a góorgóorlu bu àndeeg ña ndimbalul yàlla ak ñaanuk sëriñ bi ak barke borom bis bi yàlla mën nañoo mën nañoo dimbali kon daal gouverneur ci gàttal euh, xalaat yu gàtt yooyu laa moon bu fekkoon ne sax jamono ji mën na ko gën naa yaatu kon waa commission yi ndax. ni ngeen ko xamee comité d'organisation dafa am lu ma juróom-ñeenti commission service bu ne am na fi commission te commission bu ne président ma ngi fi am na xalaat waaye nag ginnaaw liggéey bi nii la demee te ni nga ko defalee nu nu nu baax la ndax gàttal nga ko te ñëpp xam nañ ku ku xam nañ li am ak li amagut li ñu li ñu war ak li nu war agut ak xalaat xalaat li ñu war a tëral ba loola am loolu doy na sëkk nag ci waxtaan kon nag nga nag mooy jégal ci guddal bi la ca des rek moo di xanaa ni ñu daan def moo di ñaan